ñëw xalif général des mourides fi ci Dakar nar amay dal ci askan wi fare kolobaan ak liko wër gannaaw visite ba mu amal masalikul jinaan njiitum réew mi Macky Sall jël nogal tabax morgu ak hôpital ci peggu askan wi nag di ko rafetlu jaadu na kat juma yu tol ni fu ne fu ñu faje ak fu ñu wajale nit ñi wara dem yomul xiyam war na fi am muy lu rafet Bah, bah, musim maksa lim def nii rek la mën a def ah, li kese la moo doon wax sëñ bi parce que lu mel ni saa ma saa ko jënaan yii nii mu dig ñu yéen nii dañ koy xaar rek toog di ko déglu. bu ñëwee gis sëñ bi xalifa bi waxtaan ak moom it sëñ bi rafetlu ko ñun ñëpp ji ànd am ci mbégte bu baax a baax a baax. jullit di vraiment xam nga jaamoo seen borom dafa war a am post de santé boo xam ni non seulement euh, disciple di yi war nañ fi mën di vraiment gis seen bopp ah. ak morgue boo xam ne tey nit ku fatu aux alentours ci quartier yi nga xam ne ñoo wër Massalikul Jinaan bi war nañ la fi mën a andi quoi moi je pense que ni loolu logique la. yooyu noonu àggul ci man. waaye mom lepp lu mu bëgg a Serigne Touba rek yalla nako suñu borom yombal mom yalla nako yalla bu mu jafé ci mom paa bi ak soxna si duñu xamal li tax poste de santé bi fi ci mazalikul jinal doon lu am jëriñ wa fi poste de santé dafay sori koñ bi yëp amu poste de santé Grand Dakar ngay dem euh, Bas gaspar Camara sino nga dem kolaban mais ko yëp koñ bi du bop du Cité Port du HLM 6 HLM 2 moko am. Moy poste de santé HLM fi yëpp amu fi. amal nañu ñariñ parce que euh, Colobane amna na poste de santé Grand Dakar amna, Wagu ñay amna am amna HLM na amna bu bees bu nek ñaar tali bu ñu defee fii moo ñuy parce que ñun ñoo fee Masaliku. l'hôpital nam amna solo waaye si kàddu ñiile nguur gi war na it gën a xel si yokku karangé gox bi. Dakaru amul kenn ku fi yeewoo te doo jàkkoonteeg. insécurité insécurité bi nee naa la fii ñu taxaw ni di wax ak yow ni le gëna le gëna le gëna la grave parce que fii quartier yi ko wër dafa mos a ci quartier yi nga xamné c'est des quartiers réputés moy ñaari tali Grand Dakar ak Taïba bi nga xamné mom mo leen ëmb ak face Gueule tapé Colobane bi moom kay fi sax dañuy agressé koñ bi ni dañuy agressé démb rek sama ben xale dama dem jalé ko mi leen dafa am ben kii xalé bo xamné dafa yor scooter benn way bu ma ko fi ci xayma bi. comprendre ak taalibe yi nekk fii ñu ñu taalibe sax di agressé di jàkk waagu ñaay bi di dugg biir bopp fii daal moom ngi noonu rek. non li ñuy ñaan moom mooy sécurité sécurité yi rek parce que jour bi passé nii li fi dégg ba métti nañu trop ñu murit yi façon bu ne façon ni bu ne lañ fi gis ay sàcc lu nekk dégg nañ ko fi mais loolu rafetluñ ko benn yoon. ñu renforcer sécurité yi parce que des na ko quoi des na ñu fi lañ dëkk mais des na. ñoom sëriñ muntaxa mbàkke fii ci ndakaaru ñëpp ko rafetlu tey nag askan wi di taaxeelu ci ndigle njiitum réew mi tey nara gën a ñoŋal nekkinu askan mi bur yàlla ko def muy sun borom mu ni bekkal